Charles de Gaulle ou l'opposition réunie autour de Manko Tahaou Sénégal a appelé à une manifestation, un grand rassemblement politique au nom de Manko Tahaou Sénégal. Euh, kon ni ngeen ko xamee mbokk yi ñu ngi fii ci avenue Charles de Gaulle nga xam ni tey opposition bi nga xam ni ñu ngi tuddee seen bopp tey Manko taxaw Sénégal ñoo fi woote ñoo fi woote ndaje nag li waral ndaje bi mooy euh, nee nañ dañuy laaj ci nguur gi nga xam ni moom la ñuy jiiñ ne moom moo jàpp Khalifa sàll mu bàyyi ko beneen bi mooy euh, ñi nga xam ne ñoo far ci wàllu Karim Wade ñoom li ñu ñaan mooy nee nañ nag Karim Wade ñibbisi ndax nee nañu nguur gi moom moo ko génne réew mi ci lu ci lu doonul coobareem beneen bi nee nañ ñoom dañuy ñaan seen àq ak yelleef yi nga xam ni ñu ngi koy juñ nguur gi ne moo ko foqati nee nañ na leen ko nguur gi delloo moo tax euh, fi ñu toll nii nag leader yi euh, yegg see guñ mais ñoom def nañ seen mobilisation.

Euh, les images que vous êtes en train de voir sur Dakar Actu, euh, l'opposition regroupée autour de Manko au Sénégal a mobilisé ses troupes ici euh, à l'avenue Charles de Gaulle pour exiger la libération de Khalifa Sall, présenté aujourd'hui comme un détenu politique par cette même opposition. parmi aussi les objectifs de cette marche, c'est de réclamer le retour de Karim dont les partisans accusent le régime de l'avoir églisé de force. Euh, l'autre exigence, peut-être euh, si on peut le dire ainsi, euh, c'est le retour de la démocratie parce qu'ils estiment que leurs droits, leurs droits les, les plus petits sont aujourd'hui violés par le régime actuel. Donc, ni ngeen ko déggee ak ni ngeen koy gissé tay ji ni ci image yi nga xamni ni yéen koy ci Dakar ak ci ñu ngi ah sank nak setlu won nañ ay jafé jafé yu ndaw ci tribune officielle bi parce que dafa mel ñi nga xamni ñoo far ak Karim Wad dañ doon bañ ñi nga xam ñoo and Khalifa Sall accédé ci kaw tribune bi ba tax na sànq am ay jafé jafé yu ndaw yu muy indi ba ki nga xamni sax moy Moussa Diakhaté bok ci Euh, Beaucoup gis-gis jël na micro bi pour calmer nit ñi pour wax leen ni tay ji ñom li ñu wara bayyi bàyyi xel mooy parti amatu solo Ben kurel amatu solo kurel gi am solo ci nim ko fatale moy Manko Taxawu Sénégal bi nga xamni ni mo wote fi ci avenue Charles de Gaulle euh, on constate que il y a pas ce grand rush cette grande foule euh, les militants continuent d'arriver au compte goutte même si là où nous trouvons, toute la presse est là, euh, il faut remarquer qu'il y a une forte affluence devant, mais au niveau, voilà, euh, ce que vous êtes en train de voir là, c'est des militants, nous savons tok nañ tok di xaar seen ay leader ñi gis tableau bi euh ñu def Khalifa Sall euh di Dakar peut-être nekku fi mais nous nous sommes remarquer nous pour participer à cette marche qui encore une fois a été à l'initiative de Manko au Sénégal qui réclame euh, la libération du maire de Dakar. À ce sujet, rappelons qu'un point de presse a été tenu avant-hier euh, au siège euh, du grand parti de Malik Gakou. un point de presse où il a été question euh, des conditions de détention de Khalifa Sall parce qu'il a été rapporté par la presse et par une partie de ses proches que le maire de Dakar, arrêté dans le cadre de la caisse d'avance de Dakar, euh, ne jouit plus de, de tous ses droits en prison. Ses droits de visite ont, été restreints. Euh, il n'a plus droit à ses 20 visites hebdomadaires qui, qui, ont été diminuées ou revu revue à la baisse euh, jusqu'à 10, ce que le maire de Dakar ne peut accepter. C'est pourquoi euh, ses proches et l'opposition a appelé à faire face au régime de Macky Sall qui est aujourd'hui accusé de tous les péchés d'Israël par cette même opposition réunie aujourd'hui autour de Manko au Sénégal. Une opposition dont la mission aussi qui s'est donnée comme objectif

Macky Sall def ko teg doole te dañu bëgg mu génne ko waaw kon ni ngeen ko gisee ngeen gis ngeen am nañ ay militants yu nga xam ni ñu ngi ci kaw terrasse bi ni ngeen ko gisee ci image bi nii ñu ngay daw di daw di daw di di topp terrasse bi mu nekk uh, image bu xaw a doy waar ah, juste rek peut pour wane ni ñoom seen ndajem tey mi yitteel na leen ni ngeen ko gisee aussi ah, militants yi aussi ñu ngi toog di xaar ñu ngi xaar pour revenir un peu ci raison wu meeting bi nee nañ Khalifa Sall nañ ko bàyyi beneen bi mooy Karim Wade mi nga xam ni euh, nekkul Sénégal nee nañ Macky Sall moo ko génn réew mi na ko indi beneen bi ah, am na as yu ñuy wax ne vie bi dafa cher nit ñeneen ñi di wax ni lii di pétrole bi la gestion du pétrole sénégalais nee nañ na nekk une gestion saine ah démb nag dégg nañ peut-être li ci premier ministre wax euh, à l'Assemblée nationale il a donné des réponses euh, indi na aussi li nga xam ne loolu la code pétrolier Sénégal wax lan la pét Sénégal war a am ci pétrole bi mais aussi rappelé na ne fii benn toq pétrole dugg fi benn euh, gaz amu fi ba jar moo tax wax yu bëri nañ ko arrêté a loolu nag xëy na du ñàkk tey euh, opposition bi nga xam ni ñu ngi dajaloo fii danañ ko indil ay tontu <laughs> ah bu ko defee ñu avancer tuuti rek ñu jéem avancer ci tribune officielle comme ni ngeen ko ñu c'est le toy boy ici on va essayer d'avancer comme vous le voyez dans la tribune officielle c'est pas aussi simple pour accéder à la tribune officielle c'est la croix et la bannière journaliste yaa ngi may xool xam naa ni ñun jafe-jafe bi ñu am moom ñoom boobu la ñu am comme ni ngeen ko gisee ah lii nag euh, peut-être li muy wane mooy euh, parti opposition bi wala sax euh, Sénégal boo ko jëlee ci boppam nit ñi mën nañu dajaloo mais pour ñu déggoo ci benn kàddu toujours dafay metti parce que ku on dafay bëgg a jiitu loolu nag euh, mu ngi commencé di feeñ même si ça nous a koy résoudre nous ngi koy bëgg euh, ce n'est pas aussi simple euh, pour les leaders ou les partis politiques au Sénégal oui balma soxna si dama nek ci liggéey rek motax jogante yi mom oui Oui, comme vous venez de le constater, au niveau de la tribune officielle, c'est un peu compliqué parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Il y a de petits accrochages au niveau de la tribune officielle. Comme nous vous le rappelions tout à l'heure, des karimistes à leur tête, tous un manga qui ne voulaient pas que les khalifistes ou les proches de Khalifa Sall accèdent à la tribune officielle. Il y a eu de petits accrochages, mais actuellement, on peut dire que c'est en train d'être réglé. Euh, le secrétaire général adjoint du PDS qui vient d'arriver, Omar Sarr, qui vient d'arriver acclamé par euh, la foule, acclamé, acclamé par les libéraux. Ils se sont tous levés, tous ceux qui étaient assis sont tous levés pour acclamer le leader du PDS, ou disons le second du PDS parce que le leader du PDS reste maître Abdoulaye Wade comme ni ngeen ko gisee léegi ci image yi euh, mën nañ wax ni euh, leader yi ñu ngi ñëw ñi jiite mbir mi ñu ngi ngeen di Omar Sar bi nga xam ni moom moo jiite PDS tey euh, peut-être mooy numéro 2 bi moom moo nekk ci ginnaaw Abdoulaye Wade moom la Abdoulaye Wade jox PDS mu yore ko moom mu ngeen gis nonu moom mooy yegg nit ñi nag bi mu yegg see fii ñoom ñëpp nañ jóg nañ teeru ko tatagal ko euh, comme ni ngeen koy gisee ñu ngi toujours euh, ci euh, boulevard Charles de Gaulle fii ci dakaar opposition bu senegal dajale seen bopp ci kuréel bu ñuy wax Manko Taxawu senegal xanaa dangeen ngeen ñuy topp ñu xool ci militant yi kenn ku nga xam ne ñëw na ci daje mi ñu waxtaan ak moom mu wax ñu lan moo waral ay tànk sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. waa yow ñu ñëw fekk la nga taxaw ni mën nga ñu wax lan moo waral tey sa taxawaay fii sama taxawaay bi de fas yéene ñaan démocratie bu am ci réew mi libérer les leaders yi ñu tëj parce que bu ñuy wootee démocratie il n'est pas question que ñuy di tëj ay leader sénégalais yu nekk ci réew mi war a tekki ci réew mi war a jëriñ ci réew mi ñu di leen di tëj kooku du bokkul ci démocratie loolu moo ñu indi fii waaw kon euh, xam naa comme ni ngeen ko déggee ci sëriñ bi léegi euh, ñu joxaat kàddu ki nga xam ne moom moo nekk ci wetam sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay. yow nañ xam fan nga jóge. maa ngi jóge ba Caaroy gaar. yaa ngi jóge ba Caaroy. ñëw fii pour lan. ñëw fi pour naqar la gouvernement Macky Sall. Euh, muy mu mu mu mu mu mu dimbali ngir yàlla. libéré. sun suñ bi muy toppi du tëj. waaw mu sarax ñu ngir yàlla. ndax sonn nañu dund bi seer na courant bi seer na ndox mi seer na lépp seer na nit ñi ñëpp a ngi jooy te bàyyi Karim Wade Karim Wade mooy suñ président tey mooy suñu président ëllëg bi mu nekkee prison lañ ko def président ba léegi moom la ñuy xaar moom la ñuy déglu waaw. waaw euh, ñoo ko déggandoo euh, ngeen dégg rek ngeen gis militant yi ku nekk yaa ngi xëcc euh, jëmale aussi ci sa côté. Euh, mu nekk aussi lu nga xam ni euh, opposition bi tey woote na ko fii ci place euh, avenue Charles de Gaulle meeting bu mag nga xam ni ñoom li leen yitteel tey nee nañu mooy kii di Macky Sall bàyyi xalifa Sall parce que ñoom dañu jàpp ni Macky Sall moom moo ko téye beneen bi Karim wadd mi nga xam ni nekkul Sénégal génn na réew mi nee nañ nañ ko nañu ko indiwaat ci senegal ñoom nee nañ loolu la ñuy laaj. Euh, beneen bi sànq aussi dañu gis image bu xaw a doy waar muy ay xale yoo xam ni dañoo jéng seen bopp mooy dañu jël seeni loxo takk ci ay chaîne muur seeni karam di wan di daw naan naan libéré di libéré libere euh, peut-être euh, image boobu ji jëmale ci nii xëy na tey Sénégal dañu ko jéng ñoom lool boobu jàngat lañu ñu def loolu nag xëy na ci politique la ñu nekk tubaab di ko wax peut-être c'est de bonne guerre ku ne sañ nga boo nekkee ci lang gi nous avons ay flèche sa morom euh, mu nekk aussi euh, euh, gis nañu quand pouvoir bi ñoom it ñu ngi taxaw temm ñoom it opposition bi jaaree nii ñu gis nañ une cellule de communication qui a été mise sur pied par la coalition Benno Bokk Yakar, une cellule de communication dirigée par Pape Mahawa Diouf de la coalition Maki 2012 qui tient à rendre tous les coups de l'opposition, rendre coups. Pourquoi? euh, ce qui ne sera pas peut-être euh, aussi facile, euh, parce qu'au moment où nous parlons, le camp du pouvoir euh, connaît des décisions avec le départ euh, d'une partie de Besdouniak dirigée par Mansour Sidjamil. mais lolu aussi bi ñu a ci laajee ñoom nee épiphénomène la nekk loo xam war coalition benn bokk Yakar, lu ndaw la loo dañ ci Ouais, comme vous pouvez toujours le constater, rappelons que euh, vous êtes sur Dakar Actu, le site des grands événements. Euh, site bi nga xam ni tey information yu tang yu ngeen bëgg euh, tey ñu nekk euh, boulevard Charles de Gaulle pour wan leen li fi xew te opposition bi amal ko man taxawu Sénégal nga avons ne bi ñu ko amalee yàggul ko créé yàggul Manko Sénégal la njëkkoon ñu jóge ci loolu def ko manko taxaw Sénégal ah, ñoom nag li leen li leen dajale nee nañ mooy dañu bëgg nguur gi comme élection ay élection député lañ jëm ci 30 juillet bii di ñëw dañu bëgg bu ñu jógee ci élection yooyu ñu imposé nguur gi li ñuy wax cohabitation te mooy ñoom ñu ëpp député ci assemblée bu ko defee premier ministre bi nga xam ni mooy mooy ñëw après élection yi opposition bi moo koy fal ah te peut-être Euh, loolu nee nañ dina leen permettre li leen naqadi woon ci nguur gi yëpp ñu defar ko euh, loolu nag euh, ñu nekk ci nguur gi ñoom it nee nañ du leen ci bàyyi duñ leen ko faciliter duñ leen ko yombalalee noonu ak lu mu ci mënti am daal lii xëy na day wane ni taaru démocratie Sénégal démocratie Sénégal peut-être day wane tey mu ngi dund ndax xëy na am na marche yu bëri fi jàll kenn daanu ko woon accepté ken daanu ko won autoriser tay na nguur gi autoriser na marche bi don li sax du marche ñu rappeler ni euh, rassemblement la dajala euh, moo tax ngeen gis sax mu am tribune euh, tribune nga xamni ni fa la leader yi moy njiti fa lañ jëm ah, ñi wone rek démocratie sénégal mu ngi ci yoon caméra bi nak mu ngi jël tribune bi mais ci ginnawam tuuti am ay tak der yu nekk ca kaw ca booru place de l'obélisque ñoom ña nga ca kaw jatu di xaar nah, ndax kat ñoom tamit nee nañ bëgguñu benn ëppal am benn débordement am moo tax ñoom ñu ngi encadré li nga li nga xam ne moom mooy meetingu tey bii ñu àndandoo ak yéen toujours rek si Dakar Actu nga xam ni moo leen di jox information yi ngeen bëgg saa yu ngeen ko bëggee vous êtes sur Dakar Actu le site des grands événements Comme vous êtes en train de le constater, nous sommes au meeting, au rassemblement politique organisé par la coalition Manco Tahaou Sénégal. Une coalition qui regroupe des partis comme le PDS, comme la partie du PS fidèle à Khalifa Sall, euh, beaucoup de Pape euh, le mouvement Teki. Tout à l'heure, nous avons aperçu le leader euh, du mouvement citoyen ou le mouvement contestataire euh, euh Yanamar pour Fadel Ba gis nañ ko fi aussi rappeler que le mouvement Yanamar qui a été partant pour les élections législatives à venir mais qui a sorti un

bëgg dëggal seen taxawaay ci ci langue politique gi te loolu fiñ koy commencé mooy élection yi di ñëw ñoom ñu bokk ci ah, ñoom nag euh, génn nañu bataaxal boo xam ni dañu ci weddi loolu ba mu set nee loolu amul tey amul suba fi ñu taxawoon démb ak barki démb foofu la ñuy continuer di taxaw fii nag euh, gis ngeen gis ngeen affiche boobu Karim Wade lañ ci def ak benn gaynde Euh, président vous apercevez en ce moment Barthélémy Diaz qui va prendre la parole au niveau du présidium. Vous apercevez en ce moment Barthélémy Diaz qui va peut-être d'un moment à l'autre prendre la parole pour s'adresser aux militants ici nombreux. en fond sonore, vous, entendez un tube de Pape Diouf pour dire que l'animation est au rendez-vous. Nous allons nous approcher du présidium pour peut-être vous permettre d'entendre ce que Barthélémy Diaz va dire. Excusez-nous. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ci turu Idrissa Seck ñu ngi leen di nuyu ci turu Karim Wade ñu leen di nuyu ci turu Pape Diop ñu leen di nuyu ci turu Khalifa Sall mbokk yi ñu leen di nuyu ci turu Serigne Mansour Sy Jamil ñu ngi leen di nuyu ci turu maître El Hadj Diouf mbokk yi ku juum ñu leen di nuyu ngir Sénégal ak ci turu Sénégal mbokk yi nag ngeen may ñu rek lii du meeting lii rassemblement la rassemblement bi nag autorisation bi dañ ko am fii ba 19 heures mooy juróom-ñaari waxtu ci ngoon te ñun tooñ indiwuñu fii. xuloo indiwuñu fii xeex indiwuñu fii parce que lu ñuy dox sotti na ba pare te loolu la yàlla dogal kon nag mbokk yi nañu tàmbali liggéey gi ñu ngi ñaan Bamba Fall dala de la Médina bu ngeen xam ne ni moom moo ñu accueillir fii tey biir Médina ñu ngi koy jaajëfee ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ci taxawaayam balaa ñuy door liggéey gi nag dinañ woo suñu mbokk suñu xarit suñu sëriñ di sëriñ Assane seen mu ñëw sandi ay ñaan ndax ñu mën ci dugg ci jàmm génn ci jàmm ñibbi suñu kër ci jàmm jog ci réew mi ci jàmm jële fi Macky Sall sandi ko ci xat bi ci jàmm jërë ngeen jëf mbokk yi. Oui, à l'instant, vous venez d'entendre le discours où Le message de Barthélémy Diaz qui a appelé le marabout Alassane Sen, euh, plus connu sous Tareyal, euh, le président de la fondation Rasoulillahi, mu mu ñëw def ñaan Alassane Sen Mom la ñu woo léegi ñu gën ko xam ci taar yàlla ñëw war a nee na commencé def ñaan nañu yàlla musal ci seytaane yi nañu yàlla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 te lii tey ji am fii ku mu doyul dara dootula doy moo tax ñu bëggoon tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla mu defal ñu ndam ci liggéey bii ñu nar a liggéey tey yal ñu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ñëpp àndandoo ne ne manko taxaw Sénégal yan na ko yàlla defal ndam ci lii mu jublu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf mbokk yi jërëjëf jërëjëf Serigne Assane ñu ngi ñaan monsieur le maire Bamba Fall mu ñëw dalal ay ganam dalal manko taxaw Sénégal Bamba Fall tàccu leen ñu Bamba Fall jàmbaaru Medina jàmbaaru Ndakaaru jàmbaaru Khalifa Sall jàmbaaru Sénégal tàccu leen Bamba Fall Bamba Bamba Bambe Bambe Bambe euh, le maire de la Médina qui est appelé, qui est appelé par euh, son homologue euh, de de Mon Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, Fall, aujourd'hui qui reçoit dans sa commune les autres leaders de Manko au Sénégal. Fall Bambe Bambe Bamba bamba bamba. Bamba bamba bamba. Bamba. Bamba bamba bamba. Bamba. Bamba bamba bamba. Bamba. Bamba ya buje Medina. Bamba. Bamba bamba bamba. jërëjëf maa ngi nuyu waa Medina maa ngi nuyu waa Ndakaaru di nuyu waa Sénégal di leen jottali nuyoo Khalifa Ababacar Sall Khalifa Sall nee na namm na leen Khalifa Sall nee na dañ koy jaay doole waaye dëgg mooy mujj lañu koy def safu ko ndax état bi mënuñoo fexe ba duñu perte Ndakaaru mënuñoo fexe ba duñu perte Sénégal gépp

mu libre comme Pape Diop ak Mamadou Diop ndax kenn ci ñoom deful dara li xel mën a nangu mooy ni maire bi doxee tawu Blaise ba ci Lamine Gueye ba ci Samba Gueye ba ci Mamadou Diop ba ci Papa Diop ba ci Khalifa Sall Khalifa wu ci virgule deful benn faute deful benn erreur ñu bëgg koo jiiñ sàccaay أي دوكيما أي ديو أي شيب أي دوكيما مي لول دارا دوكي دوكي خم غيني خليفة صال أن تانك مير مير دو فاي فورنيسور كو جانغو ليف خم غني ميري بو كوماندي دوكيما ولا بو ميو ولا بو كوماندي شيب دو نجل خالص دوكو مير بمي فاي تريزور موي فاي personnel municipal moy fay fournisseur un maire duñ ko espèce muy fay ay commande ceeb ay commande dugub loolu moo leen a wan ne loolu yenewul a li yenu maanaa kay mooy bu boo commandé dugub wala ceeb percepteur municipal boo koy fay wala trésor mais maire du ay millions mu def ci poosam di fay ay fournisseur virement bancaire wala chèque du trésor la fournisseur loolu na كون مصطفى جاخاتي خامني خليفه صال مسول ديتورني بن درم بن درم خليفه صال مسكو ديتورني ديتورمون دانيي بيبليك امول خليفه صال مسول دو فو مسول سيني بور اي جيي اي خامول اي صوص لا اي نار لا اي فن لا اي فو مولار كون بوك li wóor mooy dossier Khalifa Sall amul dara dara dara lu nekk mais loolu moo mënuñ jàpp Pape Diop mënuñ jàpp Mamadou Diop mënuñ sulli Samba Gueye mënuñ sulli Lamine Gueye ndax noonu la mairie di doxee kon Khalifa Sall deful dara Macky Sall lay waxal Macky Sall doomu jàmbur ji Khalifa daa war a génn kaso Khalifa Falassam, c'est à l'hôtel de ville, ce n'est pas la prison. Vive Khalifa Sall, vive la liberté, dans la dignité, vive le Sénégal, vive Dakar. Euh, vous venez d'entendre euh, l'avocat Met El Ajouf, euh, avocat de Khalifa Sall, dans l'affaire de la caisse de Dakar. Qui, lui a valu à Khalifa Sall une incarcération euh, depuis début mars 2017. Derrière moi, vous entendez les slogans des partisans de Khalifa Sall. ngeen di sama ñoo Khalifa Sall Nous, euh, ñu ngi Khalifa Sall euh, peut-être une de petits couacs techniques dans un moment, la manifestation va reprendre son cours. Actuellement, la, la, la presse qui demande à e-, être, à être mise dans de très bonnes conditions de travail. Journalistes,

Nous allons redonner, passer le micro à euh, Barthélémy Diaz aujourd'hui qui fait office de micro-centrale. Sonorisation, s'il vous plaît. Sonorisation. Oui, un petit problème technique. Peut-être qu'ils vont résoudre au plus vite. jafe-jafe technique mais xam naa ñu ngi reprendre. di bu am fula ndaw bu am fayda ndaw bu dem Sénégal ak ëllëg Sénégal. Cherno. Cherno Bokoum, le député de Réumi qui a appelé sur le Présidium peut-être euh, qui est venu au nom de Idrissa Seck le leader de souhaiterais que tu viennes ici délivrer un message au nom de la jeunesse de Manko Tahou, Sénégal. Mohamed Massali Kaye exil Massali, tàccu Mohamed Massali, bu PDS suma doomu nday suma xarit tàccu leen ma Karim Wad Massali doomu Abdoulaye Wad tàccu leen ñu Massali. Oui, euh, le député Tcherno qui vient d'arriver sur le président, le réumiste. Euh, qui est venu représenter son leader Idil Sasek. Merci, merci. Merci. Il y a un président sortant. Bouni Obama. l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts et l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Nous n'avons pas d'institutions fortes. Ça, c'est clair, c'est réglé. Mais ne nous trompons pas, nous n'avons pas aussi d'hommes forts. Parce qu'emprisonner ses adversaires politiques, ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Nous demandons la libération de Khalifa Sall. se tromper, se permettre d'être flou en ce qui concerne le processus électoral, ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Ne pas être clair sur les ressources naturelles, sur leur gestion, ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Donc au Sénégal, nous avons le malheur d'avoir des hommes faibles et des institutions faibles. C'est ça qui est dommage mais benn question laa leen bëgg a laaj ndax ñu def ni assemblée nationale assemblée nationale bii nu mu mel ñu tax mu mel nii ndax ñooñu d'accord ngeen ñu ñëwaat ndax ñooñu d'accord ngeen ñu ñëwaat la question est réglée du ñu ñëwaat merci. Oui, le député Tcherno Bokoum qui vient de délivrer son message. Parole à un vaillant lion un vaillant patriote. tàccu tous ñu Toussaint Manga Assalamu alaikum, wa Manko au Sénégal. ana jeune Manko au Sénégal yen yen avenir Sénégal. Yen yen am am fit am ngor nangu xeex pour Sénégal dama ni Macky Sall du dara répété leen man dama ne Macky du dara Macky du dara Macky dara ragal na Macky mu nangu dina bëri ak Khalifa Sall mu nangu dina bëri ak Karim Meïssa Wade mu nangu dina bëri ak Idrissa Seck mu nangu dina bëri ak ñëpp loolu laa amoon pour wax leen ma leen di remercier leen di jaajëfal leen Le discours musclé de Toussaint Manga de l'UJTL, l'Union des jeunesses Travailleurs et libéral, euh, du PDS. Il y a aussi Massali, Mamoudou Lamine Massali, des jeunesses wadistes qui est là. Massali, asalaamaaleykum mbokk Sénégal on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Mon Sénégal, il y a un dicton qui disait le mensonge peut faire le tour du monde, le temps que la vérité mette ses chaussettes. Cette forte mobilisation des jeunes, l'engagement de nos leaders de la coalition de Manco au Sénégal symbolise une victoire de cette coalition au 30 juillet 2017. Aujourd'hui, aujourd'hui, le peuple sénégalais et sénégalaise réclame le retour de Karim Messawad qui a une exigence nationale. Le pays va mal. Ils sont nous, ensemble, nous vaincrons pour la libération du peuple. On a gagné On a gagné On a gagné mbokk libéré Khalifa libéré Khalifa libéré Khalifa libéré Khalifa libéré Khalifa mën nañu notre ami et frère Moussa Diakhaté. Merci. Nous avions deux défis. Celui de réussir une coalition à la dimension de la France au Sénégal, l'inertie et pour la jeunesse sénégalaise. Vous avez une chance unique d'écrire la nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal. Comme on vient de ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎತ್ತುಜಾಯಿ ಎತ್ತುಜಾಯಿ ana étudiant ana étudiant ana étudiant ana étudiant la parole est à Victor Sadio Diouf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. ci turu étudiants yi dañu ne. président Macky Sall la ñuy waxaal. l'université mooy lieu bi nga xam ne ku ne fa lay waxee xalaatam. bés bi ki tey. benn responsable APR bu dugg biir université bi dinañ ko fa génne. képp kuy étudiant. wax nañ leen ne. Macky Sall moo jël tey étudiant première année amatul bourse képp kuy étudiant première année dagg sa bourse pour nga amaat bourse foog nga jàll dem deuxième année ak boo xamante ne régime ka mayoon étudiant yi Macky Sall jël na ko rey nañu ñuy wax ne étudiant kan du ko xoqatal étudiant kan du ko xoqatal amul beneen vision pour réew wax ne Khalifa Sall dañ koy libéré suñ ko libéré wule Edy Diagne ñooy dem génne ko pare dem libéré ko Edy Diagne ñooy dem génne ko pare Karim Wade ñib si Sénégal suy ñib si ñoo ko res ñoo koy jëli aéroport te ki ci asamaan bi dina ko jëli ci asamaan bi président Karim Wade ñib si Khalifa Sall day génn. mbokk yi que sonorisation bi baax na est-ce que sonorisation bi baax na. sonorisation bi baxna na kon nak yi kon suñu Sénégal bi yëngatu Sénégal bi dañu am fayda dañu am fayda dañu bëgg suñu Sénégal bi baat bi neexul yi qui vient de pousser la chansonnette euh, Don euh, nee batam baatam euh mom tay dafa mel ni moom la jox micro central bi mom moy présenter mom moy introduire euh nga xam. waaw mu melni ci kaw président bi dafa am problème ñu ngi wo sécurité pour ñu defaraat. Euh, ñu mettre un peu ci nga taxaw ñi nga xam ñoo taxaw ci kaw. moo nekkoon kaso ak Bamba Fall ci ay naafeq ay kàcc ak ay caaxaan Macky sal ak Ousmane Tanor Dieng kon nag tàccu leen ñu bas bu baax baax a baax a baax bas tàccu bas bu baax a baax a baax la parole est au est à l'honorable député bu Thiès Hélène di jàmbaar Hélène di jigéen bu bëgg La parole va être donnée à Elentine euh, qui vient de rejoindre euh, la coalition Manko au Sénégal. Elentine, rappelons-le, qui était euh, à l'Alliance des forces de progrès de Moussa Fagnas, qui a fait un chemin à part, qui a rejoint la liste de, de si je ne me trompe, et aujourd'hui qui fait partie...

dafa mel ni liggéey bi yombul ci ñom pour ñu wàcce ñi nga xamni ni ñoo bokkul ci mbir mi euh, ñuy xaar toujours Elentine euh, euh, nous vous rappelons que vous suivez toujours sur Dakaractu le grand rassemblement de l'opposition réuni autour de Manko taxaw Sénégal yéen a ngi seetaan site Dakaractu ñu leen ni wan li nga xamni moy ndaje mu mag mi nga xamni opposition bi amal nako fi ci boulevard Charles de Gaulle Euh, ndaje mi nag euh, li ko waral nee nañu nee nañ dañu bëgg añu bàyyi Khalifa Sall beneen bi mooy euh, ñi nga xam ni ñoo nekk ci kàngu Karim Wade nee nañ nañu indi Karim Wade mu ñibbisi nga xam ni biñ ko bàyyeeg léegi nekkul Sénégal mu ngi ci dëkku arab yi fële ca Qatar moo tax ñoom nee nañ ko bàyyi mu ñibbisi ndax dañ jàpp ni Macky Sall moo ko génne réew mi beneen bi. Euh, muy euh, aussi gestion pétrole il euh, y a toujours des problèmes techniques n'empêche vous continuez de suivre le rassemblement sur dakaractu.com le site des grands événements c'est un représentant de Modou Diagne Fada apparemment qui doit prendre la parole nous allons lui tendre notre micro pour euh, savoir ce qu'il a à dire. Salaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Vive Manko Taxawu Sénégal. Au nom de ni ko sunu frère Victor Diop waxee léegi. ñun étudiants yi dañoo xooxatal. dañoo noot. amul programme pour la société. sunu taxaway tay mo ñu la ko fi ak suñu leader yi nek vie vive Mango vive le Sénégal vive le Sénégal. Merci beaucoup. La parole est à l'honorable députée Hélène Tine. Hélène Tine qui va arriver. Euh, la, députée, Apparemment, euh, apparemment, c'est pas très facile. Euh, mu melni ñu ngi gis fi nak ay image yu a doy war yu xawa doy war ñu ngi ñu ngi gis ay image yu yéeme ñu ngi yëkëti nit ko nga xamni ci président bi la taxaw ba ko nguufaan yëkëti ko sanni mu nek image yu doy war euh, ngeen koy gis actuellement sur votre site internet actu ñu ñu ngi toujours fii euh, ci boulevard Charles de Gaulle di topp li nga xam ni mooy ndaje mu mag mi nga xam ni opposition bi moom moo ko woote fi ñu ngi sànq ba léegi nag ñu ngi woo Hélène pour jox ko kàddu gi waaye dafa mel ni yombul trop trop pour euh, député bi yegg si ci kaw président bi dafa mel ni mbir mi yombul lool lool lool journaliste yaa ngi fi site internet yi la presse en ligne, ici très présente aujourd'hui. Euh, les supports papier, les radios, les télévisions pour couvrir cet événement. Et Team qui vient d'arriver. maa ngi nuyu askanu di ci ji di ko def ci turu jigéenu Manko taxawu senegaal di ko def ci turu leaderu Manko senegaal ak di nuyu ndaw ñi fi teew ñëpp di leen félicité di rafetlu seen taxawaay ci xeex bi nga xam ne moom la ñu sumb jëmale ko ci tegaat suñu réew ci yoonu dëgg ma ne jigéenu Mankoy ana ngeen ana jigéenu Mankoy ma ne jigéenu Mankoy wane leen seen jigéenu Mankoy ma ne dañoo bëgg tey mu nekk suñu quinzaine de la ñu woon président Macky ne jigéenu Sénégal dëgg lañ leen mos xamee ak bañ moo tax tey jii seen taxawaay ñu rafet lu ko ma ne jigéenu taxawu Dakar yi wan nañ ñu yoon wi wan nañu yoon bi ci li ñuy lànk pour ñu libérer le de Dakar libérer Khalifa eh Khalifa libéré, Khalifa, libéré, Khalifa. Mané, ne xam ngeen lu tax ñu tej Khalifa Sall xam ngeen lu ñu tej ko président Macky Sall dafa tiit taxaw ne képp ko xam def ko ragal ni takkandeeram daf lay tej ci kaso bi tax.

Elentine, la députée. comme Sénégal, parité mon aïe, Kondak, Madame le ministre Aminetolo, l'ancien ministre Aminetolo euh, qui va prendre la parole, ministre dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade, euh, cette libérale euh, va, va prendre la parole

lii yëpp moko la waral yalla yalla guddal fanam mani mani Macky Sall alias Djimbory Macky Sall alias tu tay jii du nelaw tu n'es nelaw ku gis mobilisation exceptionnelle le peuple lui a tourné le dos définitivement le peuple sénégalais a tourné le dos à Macky définitivement mani mani Makisal et tous les secteurs d'activité dans ce pays sont au rouge l'éducation ne marche plus la santé ne marche pas l'inflation les prix grimpent la vie devient de plus en plus chère mani Maki, Nadem, Nadem, Nadem, Nadem, Nadem. Nadem, Nadem, Nadem, Nadem, Nadem. Nadem, nadem, nadem, dem na dem a dem Les dem moi ko fiy carte massivement exiger nous jox ñu une carte Nous dem voter pour la coalition mako Taxawu Sénégal c'est la coalition du ngor c'est la coalition du DJOM, c'est la coalition de l'avenir c'est la coalition qui va changer le pays Sénégal Tchakanam. Sénégal Tchakanam, kanam Sénégal ca kanam. merci. Euh, vous venez d'entendre euh, la ministre, l'ancien ministre Aminata Lo. Barthélémy Diaz, euh, qui s'est transformé en chanteur aujourd'hui.

dafa am benn message boo xamee ni faw ñu jàlle ko message bi message bi ñuy jàlle dañ koy adressé en priorité doomu Sénégal yi yëpp ñi teew ci place bi ak ñi nekk seen biir kër di ko adressé aussi ki nga xamee ni moo waral lii yëpp muy Khalifa Sall message bi ñuy adressé xalifa Sall mooy que ni Khalifa foofu nga nekk war ngaa xam ni le peuple sénégalais est avec toi. ma ne Khalifa Sall foofu nga nekk war ngaa xame ni le peuple de Dakar est avec toi. ma ne Khalifa Sall foofu mu nekk lii nekk ci place bi war naa wan Macky Sall que ni. il a tort, il n'a pas eu raison, et Khalifa Sall a eu raison sur lui. mais mani place bi ma bu baax déglu ma bu baax place bi ñu fille bu wax fi fi les plus grandes luttes du Sénégal fille lañ ko il n'est pas normal, il n'est plus normal qu'en 2017, nous delluwaat ci même place bi di pour la liberté il n'est pas normal que nous lois sur la même place où plus de Sénégalais ont été tués où pour la démocratie et les libertés beaucoup d'efforts ont été fournis il n'est pas acceptable qu'en 2017 Macky Sall nous ramène aux années les plus Allô? Allô? Apparemment, on a toujours le même problème technique. Euh, oui. Mani, il n'est pas normal que nous, sommes en 2017 avec li nous xare avec ak Toujours le même problème technique. Euh, oui, c'est résolu. Pour voir il n'est pas normal qu'en 2017, sur cette même place, qu'on recommence les mêmes combats que Maître Abdoulaye Wad avait initiés ici en 88. Que l'on recommence les mêmes combats que nous avons initiés ici en 2012. Il n'est pas acceptable qu'on nous ramène dans le passé. Nous sommes dans le présent et nous regardons le futur. Le futur du Sénégal c'est un Sénégal de droit, c'est un Sénégal de liberté, c'est un Sénégal où l'on tiendra ses promesses, c'est un Sénégal de vérité, c'est un Sénégal qui n'acceptera plus de prisonniers politiques. Il war a jeex ci Sénégal nous avons fini des prisonniers politiques Ce que am veux à l'endroit des leaders de Manko yéen ñi nga des ni de ay au Manko Sénégal Regardez leen sénégalais yi xool leen engagement bi am un vrai Sénégal le Sénégal de nos rêves personne n'a le droit de le trahir c'est ça le message qu'on doit adresser aux leaders de Manco. Nous nous disons, Manko Sénégal battons-nous pour le Sénégal battons-nous pour la vérité battons-nous pour la transparence battons-nous pour le vrai Sénégal Sénégal chacun, chacun Sénégal ou Sénégal à l'instant cher Bamba tu euh, qui fut membre du premier gouvernement de Macky Sall euh, qui a été ministre de la communication qui est parti, qui a rejoint aujourd'hui l'opposition euh, qui a rappelé qui a rappelé les combats qu'ils ont menés ensemble avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir pour instaurer ou restaurer la démocratie qui a rappelé que des militants sont morts sur cette place pour le triomphe des lois et règlements du pays. à l'instant Mamadou Diop Decroix de And Jëf PAD. Barthélémy Diaz jeetuna ma ana njabootu Sénégal ana njabootu Sénégal ana njabootu Sénégal na ngeen wut ñetti yëf dama bëgg su bi pare su delloo seeni kër suñu leen laajee la fa xew ngeen nett li ñetti yëf bu njëkk bi na ngeen wax ne askan wi taxaw nañu te dootuñu teew li fee Khalifa Sall génnul ci kaso bi na ngeen wax ñaareel bi moo di ne élection yi di ñëw na jaar ci yoon ñu am majorité ci assemblée nationale ñetteel bi moo di ne bu ñu demee assemblée nationale li ñu peuple bi di doyee nañu ko fa taxawee jëfe ko ba ni Macky Sall tase yaakaaru Sénégal ñun ñu bañ tas yaakaaru Sénégal maa ngi leen di gërëm leen sant wasalaam merci. maa ngi jël kaddu gi nag kaddu gi maa ko jël ci turu Front Patriotique pour la Défense de la République. FPDR di vingt partis politiques yu bonk ci Manko Taxawu Sénégal mbokk yi yéen ñëpp deg nga ngeen dem ministre mu ànd ak ministre de l'intérieur assemblée nationale né nañu am nañ 6 millions d'inscrits né nañu ñom fu mu nekk ni defar nañu ñetti millions de cartes ñun

sàcc-le sàcc-le sàcc-le sàcc-le sàcc-le dañu ne bi télé yi waxuma dama ne Macky Sachez-le Sachez-le Sachez-le Satchelin, Satchelin, Satchelin, Satchelin. Mokéi, Damané, Kou Satché sous nous élection, Nous Satché sous nous... Vous l'aimez m'avoir l'oeil. Qu'on a la parole à Monsieur le ministre Omar Sarr. Nous avons tout Abdoulaye Ouad Anangen. Nous avons tout Karim Ouad Anangen. Karim njabootu Karim Wade ana ngeen Karim asalaamaaleykum asalaamaaleykum Abdoulaye Wade maa ngi leen di jot lii nuyoo président Karim Meïssa Wade ma ni tey bu premier rassemblement bu Manko Dakar et bien sûr on pense aux absents on pense bien sûr à notre maire Khalifa Sall injustement emprisonné Et nous demandons tous sa libération inconditionnelle. Libérez Khalifa Libérez Khalifa Libérez Khalifa Libérez Khalifa Libérez Khalifa Libérez L'autre absent, absent, absent est pour nous Karim Ben Sewad, l'exilé. Et nous disons, ramenez Karim, ramenez Karim, ramenez Karim, ramenez Karim, ramenez Karim, ramenez Karim, ramenez Karim. Ramenez Karim. C'est bien. Ils sont deux grands absents dans ce meeting historique. Nous remercions tous les habitants. Nous remercions tous les militants. Je remercie en particulier la forte mobilisation du Parti démocratique sénégalais, la forte mobilisation des, des mouvements carimistes. Je pense que cela est visible c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut impérativement continuer ce combat. Seul ce combat permettra la libération, la libération du maire Khalifa Sall. Seul ce combat pourra ramener, ramener au Sénégal Karim Ouad. Pour nous, cette mobilisation doit être une première. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous allons préparer les élections, gagner ces élections. Et avant et pendant ces élections, nous devons continuer cette formidable mobilisation. Il nous faut impérativement continuer cette mobilisation. Ces gens d'en face, Manignom, Bat ni Satye Regle Gagniman. Satye élection Mom Aujourd'hui, Déjà, vous voyez dans vos communes, ils ont livré ce qu'ils appellent des listes d'électeurs falsifiées, incomplètes, des listes fabriquées pour frauder. Parce que ces gens-là, ces gens-là ne pourront gagner les élections que par la fraude. Et il faudra nous mobiliser pour empêcher cette fraude, pour assurer la victoire du peuple le 30 juillet 2017 Mani, mobilisation bi def il faut que nous am fu nek fu Sénégal il faut que mu am fu si ci il faut que nous fexé parce que mobilisation bi rek mo suis am mo mo tax libérer ñu libérer notre maire nous ñu libérer donc Khalifa Sall mobilisation bi rek mo meuna tax nous ramener nous ramener ñu Karim Messewad. nous allons faire attention ces jours-ci déjà les listes sont en train de sortir les listes des électeurs je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de fraude beaucoup de fraude qui se préparent et nous devons dans ce combat exiger que le ministre de l'Intérieur ne soit pas chargé des élections Abdoulaye de Diallo mënul gérer ay élection dafa nekk APR nekk responsable APR nekk militant APR nekk sàcckatu APR donc nous mënul gérer ay élection daanu dans notre mobilisation daanu wane loolu daanu gën a expliquer sunu ay programme wax lu nu bëggal Sénégal mais Sénégal mënul am sans un Sénégal de liberté un Sénégal de liberté et les libertés il faut les acquérir nous avons beaucoup combattu. Nous avons beaucoup combattu. Mais il faut impérativement poursuivre ce combat pour asseoir un Sénégal nouveau. Nous pouvons le faire. Ces mobilisations montrent que nous pouvons le faire. Nous devons impérativement continuer à nous mobiliser et à créer ce Sénégal nouveau. En tout cas, Sénégal et si Sénégal taxawee ñoom dañu daw inshallah jël leen jëf jël leen jëf Sophie jël de jëf. Nous venons d'entendre euh, le secrétaire général adjoint du PDS, euh, Omar Sarr, qui s'est adressé aux militants venus nombreux prendre part à la manifestation organisé par euh, Manco au Sénégal. Omar Sarr euh, qui a demandé la démission ou le limogeage d'Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, parce que pour lui, il est juge parti. Nous parlons bien sûr de l'organisation des élections législatives. Cette opposition qui craint déjà des fraudes le député Modou Djan Fada. Modou Fada qui va prendre la parole. Mboki Sénégal, Mboki département Dakar, Mboki région Dakar, Taïkui démocrate sincère Walangai patriote wala nga bëgg Sénégal nga à la place de la liberté à la place de la démocratie à la place où s'organise ce grand rassemblement de la coalition Manko Tahaou Sénégal nos partis, LDR Yesl, membres fondateur de Manko Tahaou Sénégal la place du maire de Dakar Khalifa Sall du La place du maire de Dakar Khalifa Sall c'est à la mairie de la ville de Dakar le Qatar n'est pas le pays d'origine de Karim Wade Karim Wade est du Sénégal et qu'il doit rentrer au Sénégal nous avons démocratie ak liberté nous sommes dit, université Cheikh Diop 88 93 2000 suñuy Irak remplace Nous l'union gomboy, gëm démocratie kenn du ko plateau d'argent liberté kenn du ko plateau d'argent liberté dañu koy xeex liberté dañu koy jëli liberté de koy wut qu'il yi nga xamné Tao, Manko Taxawu Sénégal taxaw Noko. Tant qu'il yi su Inshallah, en 2017 l'opposition va disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale su ko defee ñu roof Benegalgal, galgal président Macky Sall su ko Ben benn bi du bax en 2019 Ben tank bi lañuy qu'on a su ko defee carte jeex Yes, sir. Yes, À l'instant, le leader de Yesal, Mouridian Fada, qui pour lui, la parole. qui prône euh, la cohabitation, la cohabitation. À l'instant, le leader du mouvement Teki, Mamoud Lamine Diallo. Assalamu alaikum, Bolomi maa leen di nuyu di leen gërëm di leen sant maa ngi nuyu waa Ndakaaru di nuyu waa parcelle Assainies gis naa seen maire maire Moussa Sy mi ngi seen koy nuyu di ko gërëm di ko sant seen mobilisation bi rafet na ma bëgg

nous avons assemblée nationale ci loxoom wax ji lolou la nañu continuer mobilisation bi suñu ko continuer libérer Khalifa Sall le maire de Dakar Nous continuons une mobilisation parce que Sénégal fa mu toll démocratie am Sénégal manul tolo Gambia ci démocratie Gambie manu ñoo raw ci démocratie kon nag nañoo góorgóorlu ñu nek ben góor ak jigéen xale ak ndaw japp ci mango Taxawu Sénégal inshallah rabbi Macky Sall léegi mu jéxal ñu am jamm nang suñu pétrole assalamu wa rahmatullah Le discours de Mamoun Lamine Diallo axé sur la gestion du pétrole Euh, Mamadou Lamine Diallo mu doon wax léegi ah kon xam naa peut-être euh, Pape Diop ñuy li ñuy bëgg woo Pape Diop nga xam ne nekkoon na maire de Dakar nekkoon na président euh, Sénat moom lañuy ñuy bëgg jox kàddu gi moom la Barthélémy Dias di wax nii. xam na ni Pape Diop gor du jël lu mu moomul kon nag Khalifa Sall jëlul lu mu moomul kon nag ngeen tàccul ñu président Pape Diop mbokk yi tàccu leen président Pape Diop. asalaamaaleykum. gaal ñu fali Macky Sall nañu mbooloo ñu fali Macky Sall yéen waat nanu mbooloo ñu fa lii Macky Sall nanu mbooloo ñu fa lii Macky Ndakaaru asalaamaaleykum mbokku Sénégal Amna Yakartei Nili ni le peuple du changement woné à cette place-ci le peuple sénégalais a définitivement tourné le dos à Macky et son régime euh, li ou Manko yep, Wonengeni, ngeen ni suñu top ngeen topp ci suñu lolo Daniel Macky Sall bëgg kon kon melna Manko Sénégal est porté sur les fonds baptismaux à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin d'organiser un baptême de feu c'est déjà fait kon Lignoufi en détail, moi, exiger la libération de notre ami et frère Khalifa Sall Khalifa Sall Khalifa Sall n'a pas créé une caisse d'avance à la mairie de Dakar. Encore moins Pape Diop, maire de Dakar. Nous l'avons trouvé en place et ces fonds étaient destinés à soutenir les populations de notre capitale. Je peux vous dire solennellement que les 30 millions de la caisse d'avance ne suffisent pas à prendre en charge toutes les demandes que Khalifa Sall reçoit journalièrement. Je l'ai dit, j'ai été aidé parce que j'avais des fonds politiques à l'Assemblée nationale. Sinon, je ne tiendrai pas devant face à cette pression des populations qui se trouvent régulièrement dans le besoin. Donc, si Khalifa Sal aujourd'hui est en prison, c'est parce qu'il est un otage tout simplement politique, mais, parce, pas parce qu'il a détourné de l'argent. kon loolu tay kon li Manko. Je vous remercie. Quand lii exprimé... Moi, Khalifa Sall de génn à partir de maintenant comme un seul homme je crois qu'une première comme ça on ne le voit nulle part. Cette forte mobilisation a montré que les partis composant notre coalition ont la détermination d'aller ensemble et de battre Macky Sall au soir du 28, du 29 juillet prochain. Li, li li Manicomandé, j'ai suivi dans le passé les premiers rassemblements de l'opposition d'alors, mais ils n'ont jamais, elle n'a jamais pu mobiliser comme nous l'avons fait aujourd'hui. Les premières manifestations étaient organisées là-bas et la circulation n'était pas barrée. Cela montre que cette détermination des populations est sans faille. Ce que nous voulons maintenant, c'est exiger la libération de Khalifa Sall, mais également le retour de Karim Wadou au Sénégal. Je crois que ces deux otages Khalifa et Karim sont deux membres de la coalition, mais aujourd'hui, Macky Sall comme un otages Nous avons ba Nous élection yi Khalifa Sall Karim Wadi Nibisi du Sénégal bu ko fait, si fi fi lañuy ñuy ak ñun ci xeex bi ñun nak ño wara a pour ñom loolu mo andi li tay man maangi wax ni maangi leen di jox sama engagement ci coalition bi nga xamni taxawal nañ ko ñu and nek ben ba dàq Macky Sall parce que Macky Sall deful dara Sénégal j'y reviens Macky la plupart de ces inaugurations sont des projets de l'ancien régime, des projets terminés ou commencés. Toutes les inaugurations presque de Macky les réalisations inaugurées dans le nord du pays, celles inaugurées dans le sud du pays et les autres qui l'ont ici à Dakar, tels que le pont qui a été euh, inauguré sous le nom de le pont de l'émergence, qui est un projet du président Ouad étudié et monté. Il y, a, le prolongement également de la VDN qui en fait partie. Et l'autoroute, j'en passe, l'aéroport qui n'est pas encore terminé. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Donc, il se glorifie d'avoir

comme un malheur bu xamul fu mu loolu ci Macky Sall olof yi nee hein, waxuma ay waral ay kon ngi di en tout cas féliciter tous les partis qui composent la coalition Manko Taxawu Sénégal vive Manko Taxawu Sénégal vive les partis qui composent Manko Taxawu Sénégal. waaw ñu doon déglu léegi Pape Diop nga xam ni moo nekkoon président Sénat moom nag lu ñu mën jàpp ci discours bu ñu ko tënkee ci fu mooy nee na Khalifa Sall li tax ñu jàpp ko du dara euh, ndax nee na fanweeri million yi nga xam ni moom lañ ko jox. loolu sax doyul pour fajj soxla wa Dakar leneen yi leneen li moy waxna ci euh, ci inauguration yi nga xamni mom la Macky Sall di def neena ay projet la yo xamni ben du mom mom du deful ben projet ludul xana di inaugurer ay projet yu nga xamni ci nguru ablaye wat lañ ko commencé won mom pap Diop euh, ay cadeau buñ ko teunké ci wolof la wax

jëlaat na kàddu mu ngi dellu ci ay slogan Sénégal dirigé Sénégal njabootu Karim Wade ana ngeen jóg ngeen njabootu Karim Wade yen njabootu Pape Diop ana ngeen Idrissa Seck ana ngeen jóg yéen njabootu Serigne Mansour Sy Djamil ana ngeen jóg leen yéen njabootu Modou Diagne Fada jóg leen mbokk dama bëgg nag ngeen tàccul ma suma xarit di suñu doomu nday di suñu yaakaar dama ne ana askanu Géejawaay ana askanu Géejawaay dama ne askanu Géejawaay peut-être euh, l'un des derniers orateurs. Apparemment, c'est euh, Malik Gakou qui va incessamment prendre la parole. Le leader du grand parti qui est annoncé par euh, Barthélémy Diaz. Oui, nous, nous, nous, voyons présentement cher Gay Cheikh Gueye maire le maire de Derklé kon ñu bàyyi Cheikh Gueye maire Derklé nga xam bokk na ci gën a jege Khalifa Sall ñu bàyyi ko mu wax. asalaamualeykum. asalaamualeykum mbokku Ndakaaru. le maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall mi ngi nuyu. mani dama leen bëgg laaj ay laaj yoo nga xam may tontu. kan moo defar palaasu Dakar yu ba ñu ràññi ba mel ni ñu mel. kan mooy joxe meew mi ci école Ndakaaru yi. kan moy joxe bourse yi ci famille de démunies yi kan joxe uniforme yi ci école yi kan def programme d'appui aux familles en situation de pauvreté kan moo defaraat école yi ba ñu ba xale yi mën a jàngi programme vert de l'école kan mooy joxe ndogu yi ak suukaru koor yi kan mooy joxe suukar yi ak biya makka yi kan mooy faj néew ji doole ji bu ñu feebaree kan mooy jox barkeelu yi ci église yi ak jumaa yi mooy joxe tàngalu gàmmu yi kan mooy dimbale njaboot gi kan mooy yaakaaru Ndakaaru moi Yakar au Sénégal quel président CGLIA quel président City Alliance Quel secrétaire général association internationale des maires francophones moi je déclaration de patrimoine de Khalifa

Khalifa Sall est un grand homme. Khalifa Sall est un homme de vertu. Khalifa Sall est un homme de posture. Khalifa Sall est un leader affirmé. Khalifa Sall est un homme au même temps. Je vous salue et je vous transmets les salutations de Khalifa Sall. Khalifa demande à Tahou Dakar, dans la grande coalition de Manco Tahou Sénégal, de poser des actes pour changer le visage du Sénégal, offrir de l'emploi aux jeunes, renouveler la jeunesse et offrir justement des semences aux paysans. Vive la coalition Manco Sénégal pour la libération immédiate et sans condition de la À son tour, euh, cher Gueye, euh, euh, de la coalition Tahaou Dakar qui vient d'arranger les foules, qui vient de dénumérer les mérites de Khalifa Sall. Euh, moom Cheikh Gueye bokk ci nga xam ne gën leen jege tey Khalifa Sall moo doon wax léegi moom nag lim na euh, ndomba tànk yi nga xam ni yëpp xalifa Sall doon na ko ak aussi réalisation yi mu def fi mu nekk nii nag Malick Gakou mi nga xam ni moom mooy euh, leaderu grand parti moom Barthélemy di annoncé nii sama ginnaaw nag waa këram njabootam ñu ngi nekk en transe les militants du Grand Parti en transe à l'annonce de leur leader Malik Gakou. Tout, tout, de, tout de blanc vêtu. Tout, tout de blanc vêtu. Seul, comme ni ngeen koy gisee ci image sommes Dakar actu actuellement ñu nekk fii ci boulevard Charles de Gaulle di di leen jox li xew fii te opposition bi woote ko mu nekk mu mel ni boor bële xeex mu ngi fay am fi mu nekk nii sama ndeyjoor xeex bu metti mu ngi fay bëgg a am ñi yore kaaraange kii di Malick Gakou ñuy bañ ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf te militant yi bañ ñu jege ko. li ngeen di gis seen kanam wute na ak li nekk sama ndeyjoor nga xam ni buuxante bu metti moo fa am ah, ñu déglu le président Malick Gakou bu grand parti. asalaamaaleykum. ani manko wa Sénégal. vive banko. vive banko. libéré Khalifa. libéré Khalifa. libéré Khalifa. Khalifa libéré Libéré Libéré Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez le lion qui dort Est-ce que vous connaissez le lion qui dort est-ce que vous connaissez le lion qui dort Non, mais j'ai rien entendu. Est-ce que vous connaissez le lion qui dort Est-ce que vous connaissez le lion qui dort Le lion qui dort, c'est Macky Sall. Est-ce que vous connaissez le lion qui dort Je voudrais, je voudrais, s'il vous plaît, mes chers amis, mes chers amis, je voudrais dire au lion qui dort de bien dormir encore. Je voudrais dire au lion qui dort de bien dormir encore, puisqu'il sera secoué, puisqu'il sera bouleversé, puisqu'il sera galvanisé, puisqu'il sera foudroyé par la force du peuple sénégalais. Je voudrais dire au lion qui dort je voudrais dire au lieu qui dort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. plaît. Je voudrais dire au lieu qui dort. Je voudrais dire au lieu qui dort de se réveiller. Puisque ce n'est pas sur la planète Mars que nous allons lui demander de nous donner notre pétrole. Ce n'est pas sur la planète Mars où nous allons lui porter plainte. Mais c'est bien ici au Sénégal. Ce cher Sénégal qu'il est en train de détruire avec sa politique désastreuse du plan Sénégal émergent. C'est bien ici, dans cette terre de liberté et de démocratie, que nous allons montrer à Macky Sall que rien ne peut arrêter la force du peuple sénégalais. Et c'est debout, c'est debout, la main dans la main, que la coalition Manco au Sénégal va prendre l'Assemblée nationale et changer le Sénégal. Allez, allez, bon ami. Allez, allez, bon ami. Allez, allez, allez, Sénégal. مالي خالي سنغال كل جاي يكتي سلوغو كل جاي يكتي سلوغو كل جاي يكتي سلوغو كل جاي يكتي سلوغو مالي كل جاي يكتي سلوغو alors alors c'est سنغال le Sénégal de Macky Sall et nous disons non Nous disons non Nous disons non Nous disons non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Je voudrais dire que pour la coalition Non. Non. Sénégal, la libération de Khalifa Non. est incontournable. Je voudrais, mon cher Khalifa, de là où tu es, te lancer le salut du peuple sénégalais. Je voudrais, Khalifa, là où tu es, te dire merci pour ton combat pour la liberté. Je voudrais, Khalifa, te dire là où tu es, merci pour ton combat pour la démocratie. Je voudrais, Khalifa, vous dire merci pour Dakar, merci pour le Sénégal, merci pour le peuple sénégalais, merci pour le travail accompli au de la

je vais laisser la parole à mon grand frère Idriss mais je voudrais vous dire je voudrais vous dire je je voudrais vous dire je voudrais vous dire je voudrais vous dire je ne peux pas être sur ce podium sans avoir une pensée pour mon père Abdoulaye Wade. Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir une pensée pour mon père Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade. Vive le président Wade. Gordi, mon mari d'olé. Gordi, mon mari d'olé. Gordi, mon mari d'olé. tous. Vous savez qu'en passant à Abdoulaye Wad, je pense à mon petit frère, mon ami, mon frère de tous les temps, Karim doit revenir Karim doit revenir. Karim doit revenir. Karim doit revenir. Karim doit revenir. Karim doit revenir. Et ne plus important maintenant.

Donc aujourd'hui, la personne la plus importante, la plus symbolique, la plus significative, c'est Khalifa Babacar Sall, maire de Dakar. Libérez Khalifa, libérez Khalifa, libérez Khalifa, libérez Khalifa, libérez Je voudrais terminer. Allez, je termine, je termine, je voudrais terminer pour demander à la jeunesse ici présente d'applaudir toutes les femmes de Manco Raoult, Sénégal. Je vous demande d'applaudir la jeunesse de Manco Raoult, Sénégal. Je demande aux jeunes et aux femmes de dire Vive Khalifa Sall Vive Khalifa Sall Vive Khalifa Sall Vive Manco Vive la démocratie Vive le Sénégal Malick Gakou ngeen doon dégg léegi mu nekk président parti bii di grand parti le grand parti euh, léegi nag xam naa lii des ci mbir mi pour mu jeex bëreetul Malick Gakou mi nga xam ni rendre na hommage kii di Abdoulaye Wade nuyu waale ki nga xam ne nee mooy xaritam mooy frère am te nee mu tudd Karim Wade Makisal, Sall beneen bi Makisal, Sall nee na Macky Sall gaynde guy nelaw la te bu 30 juillet dinañ ko yëngal ba mu yeewu loolu lañ mën jàpp ci discoursu Malick Gakou na ci ci leader yi nga taxawal coalition di coalition di Taxawu mu Euh, mu mel ni ndaje mi mu ngi bëgg a tas. Barthélémy Diaz fait un clin d'œil à son père Barthé euh, Jean-Paul Diaz, Barthélémy Diaz, qui rend hommage à son père euh, Jean-Paul Diaz, qui a rejoint, qui a rejoint la coalition Manco Taxaw Sénégal. À l'instant, nous voyons le leader de Réumi, Idrissa qui va s'apprêter à prendre la parole lui aussi, certainement pour clôturer pour donner, dire le discours de fin de cette manifestation. Permettez-nous. Voilà, Idrissa qui va prendre la parole certainement pour dire le mot de fin. asalaamualeykum mbokku manko taxawu Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ci turu leaderu manko taxawu Sénégal yépp Nous avons ci nuyo bi di l'ensemble des khalifes généraux du Sénégal et l'ensemble des autorités religieuses de l'Église sénégalaise Nous len di di sant di sakku ñaan ci pour mu jëm ci Sénégal bu ñu jógee ci loolu ñuy beral nuyoo di ko sargal ci coonoom di ko sargal ci fàtte boppam di ko sargal ci jël téléphonam képp ku nekk ci ñun ci leaderu Sénégal mu ñaan la nga fàtte sa bopp dëgmal lu saafara jafe-jafe yi nga xam ni askanu Sénégal moom la nekkee ñun ñépp mu ñaan ñu ñu fàtte lépp fàtte suñu bopp dëgmal soxla askanu Sénégal stoppé la dégradation du Sénégal, stopper le gaspillage et la dilapidation des ressources du Sénégal qui déflore loolu mooy suñu maître Abdoulaye Wade.

dama leen a waxoon ne dama leen a waxoon ne bu heure bilan jotee bu heure bilan jotee ku xool bilan Macky li ko Ablaye Wade bàyyil ci chantier du ko sax peinture ba ciy teg leneen. ma ne est-ce que est-ce que pare na peinture u aéroport bu bees waxoon naa leen ne munu ko ñàkk bilan boobu mu ñàkk bilan nag ñàkk bilan boobu mu bilan moom la bëgg a saafara moom la bëgg a moo tax mu ne ñi nga xam ni ñooy adversaire yi ko teree nelaw bala ñoo egg ci élection yi dana leen sàkkal pexe loolu rekk loolu rekk mooy sababu song bi mu song xalifa Ababacar sàll maire de Dakar loolu rekk mooy sababu songu Karim c'est son absence de bilan qui justifie ces agressions répétées en manipulant notre institution judiciaire contre ses adversaires politiques dafa am Ben Borom xam-xam bu mag bu ma Einstein la dafa am lu mu wax le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Le Sénégal ne sera pas détruit par Macky Sall qui détruit nos valeurs, qui manipule notre justice, mais par nous-mêmes si nous le laissons faire. Est-ce que Yen waa Manko Taxawu Sénégal da ngeen koy seetaan mu bàyyi Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi est-ce que yéen waa Manko Taxawu Sénégal da ngeen koy bàyyi mu maintenir en exil forcé Karim Meïssa Wade est-ce que yéen waa Manko Taxawu Sénégal da ngeen koy bàyyi Nous continuer de respecter engagement il nous signé avec les syndicats du Sénégal Nous détruire l'éducation nationale Nous détruire la santé li Boga Hamaldal, moi, l'ensemble des leaders de Manko Taxawu Sénégal à nous pour offrir au peuple sénégalais la véritable clé du changement qui permettra de stopper les dérives du régime de la paire, les dérives de Berno Bokuyakar, les dérives de Macky Sall. caabi bi peuple sénégalais la peuple sénégalais moi y aurait ji kasobi pour Khalifa Ababakar Sall nous au niveau de la mairie de Dakar où il a rendu d'éminents services au peuple de Dakar l'ensemble des leaders de Manko Tahaou Sénégal qu'ils prennent la juste mesure de l'espoir suscité par notre organisation, qu'ils prennent l'exacte mesure des attentes du peuple sénégalais et qu'ils s'engagent individuellement, collectivement à y répondre positivement. Vive Manko au Sénégal, vive le Sénégal. Oui, c'est ce que du parti Réumi qui vient de se prononcer. Le leader de Réumi qui a axé son discours sur l'initiative Partie partis de l'opposition de créer, de créer la coalition Manko au Sénégal. C'était euh, vos serviteurs Abdou Sissé et Mamadou Mbaye Dissele depuis la place où le boulevard Charles de Gaulle de Dakar où Dakar Actu vous en retransmet en direct le grand rassemblement politique de la coalition Benno Tahao Sénégal. À bientôt.